naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi ci kaw arène nationale wala ci kaw tribune yi toog wala fa lañ taxaw boog di moins li ne suñu ginnaaw nag ay mbër la yéen a ngi dégg am tëgg li ko waral mooy le 25 juillet ku ne xam na ne datu làmb bu mag a mag la ñi ko organisé mooy waa Rent Dakar buñ ko waxee nag muy Pape Sarr ak ay frère am mu àndal ñu tëgg ay grand combat kese parce que boo xoolee yaa ngi seen Pape Thiam nii toog Gomis di bés boobu da ciy bëre Marle nee ko rel Buur Sine mobile bu Grand Yoff Buur Sitta Adama Diouf ah Ibou Ndiaye Obali laay léy la la non lool lool loolu mësula am loolu moom c'est lii moom c'est la première fois ma gis ko léegi kaay topp ma nee ko réel la ngi nii nee ko ba ñëpp yëg ko nee ko si loo ne waaw sant yàlla bu baax am nga jàpp sant yàlla bu baax baax lamb ju mel nii mas nga koo bëre journée bu mel ni li ci ci ay yu mag lépp di ay grand combat waaw journée bu spécial moom lii raar na ci lamb quoi raar na ci lamb waaw waaw retour di la xaar ñépp ne waroon nga veillé suuf si lamb tey nga euh, mu mel ni affaire yi dafa xawoon dëgër lan moo la war booy dellu siwaat nga war a jàkkaarloog Marley. non dëgërul sax dëgërul mais àdduna mooy doxee noonu te lu war a am moom day am waaw. parce que da nga génération ñoom ñoom Sa Thiès ñoom Boy ñaa ñoom Ama Baldé ngeen bokkandoo départ mu mel ni bu ñu waxee dëgër gi mooy dafa mel ni dañ la xaw a bàyyi ginnaaw tuuti. waaw bàyyiwuñu ma ginnaaw parce que daanuñ fi lu ma daanul te nekkul ay défaite laa am tax man lii mais ñàkk adversaire moo tax bëre ak foofu quoi loolu dong la mais du tardement quoi. du tardement. Mhm. xalaat nañ nga wane ci sa bopp. waaw comme tamit comme combat yëpp combat moom bu ñu ko xasee bu jël rek pour man pour bëggal supporter la quoi. Mar xam nga ko. Mar la xam naa ko waaw. loo xam si moom. champion bu mag a la. man naa bëri de. mën na bëri trop. yéen ñaar ku dàq bëri. non xamoo ko dàq bëri parce que bëree guñ bëri noo koy jël te xamoo ko dàq bëri noo ko dàq bëri kay xamoo li nga gis si moom ci bëri seetaanoo ko mu bëri ay qualité bëri waaw waaw qualité yi nga yor ak yi nga yor ban moo gën a baax non bokkuñ ay qualité bokkuñ ay qualité parce que ban moo gën non bu gën moom xamoo ko parce que ay qualité moom kii moom ay qualité am ñoo gën si man ay samay qualité am mooy loolu maanaam mais man nga taxaw xam nga mbër di yàgg naa dégg mu ne moroom mbërëm maa la dàq bëri waaw da ngaa sañ ta wax loolu maa la dàq bëri non lamb ji man kenn dàq ma cee bëre non dama ne yàgg naa dégg mbër mu ne moromu mbërëm maa la dàq bëri yow sañoo wax sa adversaire loolu non dama wax ni maa la dàq bëri non non lu tax parce que làmb mën nga fi nit mu daan na fi nit mu daan ko loolu làmb moom mooy loolu la jour benn combat taxul ñu naan mën nga nit parce que benn jour benn nga def erreur bu ndaw ñu daan la ci ñëpp ne moo la mën fekk na xaajul bu la mën nga si def rek da a def benn erreur ci làmb ñu daan non làmb ci erreur lañ dëkk làmb noonu la da def erreur bu daan mais daf ngay def erreur bu daanu waaw bii xalaat nga moom man xaw ma si parce que mais dañuy ñaan yàlla mu bañ a am parce que erreur moom a ah, mais simna nuun comme d'habitude mi o ɓiy nuun mi nu siktaam no combat fane ke ando mi fo maar layo no fogole sereer fop i segi yo ten lam combat fana jena importance o a ah, mais xoya nuun no fop aleluya aleluya dik maa ngi bëgg waa géej waa yëpp maa nuyu njaago yi man waaw di njaago yi ñu ngi fay bu baax a baax maa ngi nuyu kull kuy njaago xam nga ñoom samay soppe lañ buñ nee njaago yi sax day am mu yem day ñu ngi nuyu képp kuy chrétien képp kuy soppe ñu ngi koy bëggee bu baax a baax di sàkku ñaan ñëpp ci journée bi ñu jàppale ñu fu waaye mun di taxaw pour ñaar ñaan yàlla chrétien yëpp am ndam si kàttum yàlla suñu borom. yow koy bëreel ci bi. waaw maa ngi bëre mbër champion boobu ñu naan laa waaw men. mooy am nga adversaire de laa bu Falaye Balde. waaw yàlla dafa def Bébé Gouy Gui musul bëre combat bu yomb ta bu jëlee combat ñëpp ne tey nga dee waaw musuma bëre lamb. Ah, man de waxuma ne tey nga dee waaye am nga combat de. waaw man moom xam xam naa man musuma ñaan yàlla am combat bu yomb parce que boo bëggee nekk champion kii mu toog nii fa laa bëgg a toog waaw di bëre grand combat boo di bëre sama si ginnaaw loolu laa bëgg foog nga daan champion nag pour nga egg fa te yàlla ma yàlla may ndam bu boobaa bëgg naa. amee amali nga téye nii. non mais gars yi ñoo ma koy jox ma seere rek yow xam nga mooy loolu. na namu naa la nag. maa la raw am nga jàmm. maa ngi sant yàlla. waaw yàlla ñu yàlla may ndam surtout. yow koy bëreel bés boobu. Makkal mu la. may ñaan grand mbañi kii waaw su ma rakk yi amati nga adversaire. kii waaw yëpp yàlla may leen ndam incha allah. xam nga Kalmu Ndour bu baax. di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi waa champion la mbër bu def ay preuve am la ci lamb defet dañuy ñaan yàlla njëkkoo dégloo muñal incha allah uh-huh. waaw. nga ne ko koo mën a def loo. waaw lamb la lamb la wax dëgg yàlla dañuy ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek incha allah mbëru mbëru mbëru kii la de mbëru li simple la de bu mën a bëri dóor tamit waaw amul problème loolu am na ku mu dóor géej waaye mu daanu suma juumule waaw ba tey loolu yëpp làmb la rek loolu yëpp làmb la ñun moom ñaanu yàlla dóor kenn mu daanu mais bay mbër la dañuy bëri rek waaw bugg ñu dóor kenn mu daanu nag pare nga daal waaw sant nañ yàlla bu baax le 25 ñëw na de waaw gis nga romb na romb na bul wari bul wari bu rombee rek jàll na amul deuxième vague amul deuxième vague géej waaye dañoo saf sap ci bés bi ndax bu si tàngi ni sama waaji xam bu si ta gomis bu Siteu sama waay la borom saret yi waaw borom saret yi mafia baa ni gaay ana saret yi saret yaa ngi si suuf war nga ma wutal fas war nga ma wutal fas ak saret dama lay jëndal mool bu dof mbongu Dakar yow mbongu Dakar laa lay mbongu Dakar ma yóbbu ko bawal waaw nga yóbbu yaa ma gën di bay xam yaa ma gën a xam ma dem tool waaw dem saret dem bayi ña saa yi sax am nga indi ko fii mu indi ko fii ndeysaan gis baax da ciy baax bar mais ci loone waaw maa ngi nii rek yaag Malick Ndiaye 37 fu waaw kooku maa ngi moom sama diggante ma maanaam maa moom bakkan si biir géew la bakkan si biir géew si biir géew ngay seen ne parce que Serigne Touba Mbacke 37 fu la tuddee boppam de waaw 37 fu la tuddee boppam man Siteu laa tuddee sama bopp Siteu bu jàmm gën di ko tarki ndaa bu mag a mag bi waaw tarki ndaa bu mag bi di ko ñaanal ndam si diggante moom Papa saw nga koy sama combat bi sax ñoruma man combat bi moo ma ñor barke arxuraanu karim mais loo sob ci Siteu ba tudde ko sa bopp waaw li ma sob si moom muy maanaam baay faalam ak ma yàgg a bëre mbapat mu daan ñëw fii nii may daan mu may tingoo ma sama gaale loolu du ma ko fàtte xam nga am rek ay archives yaa ngi fi barke Serigne Touba Mbaga di ko bégee bu baax di ko ñaanal ndam si diggante moo Papa Sow barke arxuraan mais yàgg 37 fu kan moo gën a fu waaw maa ko gën a fuu fuuf moom day fuu fuulu rek 37 fu la fanweeri dof ak juróom-ñaar yow ñaata fuu nga non man benn fou laa un fou un fou maa ko gën a dof bu arbitre bi ngay xam lépp dëggal naa ko teg lu métti. mais un ak 37 ce que tolloo na. waaw un xam nga maanaam moom mbëru démb la comme lu ma lay wax rek jamonoy manga la te man jamonoy mango duma ma daan yow Malick Ndiaye ban jamono la woon ku bëre ay ñaas ñaas jamonoy manga la te man jamonoy Balla Gaye 2 bokkuñu bëre yi bokkul doole yi bokkul hmm. tuus yi bokkul xam nga spectacle yi bokkul. kooku dama koy jàpp spectacle ba mu neex ma ma daan ko. spectacle moom. dama koy spectacle maanaam damay foo di foo di spectacle ba mu neex ma ma daan Malick Ndiaye. yaa wax lii barke Alxuraan fii laa la ko te dinaa ko daan ñëw ba si yow la lan laa la waxoon la 25 yàggatul. ba la 25. barke Serigne. si naa la grand bi. borom reefan. borom reefan ah, ah, borom dëkk bi. waaw. ci loo ne. sant ak waa këram. yow mel ni jëlët jëlët jëlëti jëlëti nga combat yaag mobile bu Grand Yoff. waaw ragaluñu loolu. dañu koy linjaa rek comme d'habitude comme ni ko gars yi waxee. linjaa mobile. waaw. mobile dis na de. non loolu ñun ragaluñu loolu. met lu mu gën a dis neexitaan. Hmm. waaw. waaw met day dégg naa lu mu gën a bu duufee neexitaan mbaam sax lañ ne bu duufee neexitaan. bu duufee neexitaan. lool loolu ay wax la. waaw olof yi daan naa dégg ñu di ko laaj. loolu nag am. mais est-ce que kii dina mën a est-ce que kii loolu loolu dina ma a nekk ci moom. waaye lool loolu dara ñun tam nañu bëre poids lourd tam nañu ko. bëre nañu fekk poids lourd bu ne ñu ko ëpp sax bëre nañoo ak moom ñu gën a diis mobile bëre nañoo moom daan leen waaw. kon daal bés boobu moom ndam li day ñëw. lool laay loolu laay xëye di ko gonte di di di ko nelawee chaque jour ma man chaque jour damay am confiance na may daan waaw. est-ce que du confiance boobu moo lay daan ci làmb suufoon. a ah, mais mën na nekk parce que man ku ma jàkkaarloo pour man maa la mën te lool laa gëm. dañ la koo jëwal dégg naa doo ginnaaw. loolu laa gëm. dama gëm na maanaam ku ma jàkkaarloo damay damay dox sa kaw jàpp la daan la waaw te itam mu ngi wax rek na feete wa wax ji rek ba ba arbitre gën diggante dina xam ne Bour Sine neexalul kenn neexaluma kenn ku bëgg ku la neexal dangay ngay dem sa yaay wala sa jabar neexal la. lay bëggee mbër. mbër si loon sant yàlla mbër tur bi nan la. Boston 2 maa mujjoon bëri liw coor waaw maa bëri ba ka rafet ba rafet ba dëgg ndey sonn nañ sant alhamdulilah waaw sant yàlla bu baax gara koy bëreel bés boobu la vingt bëre wëree mëriñ xulee bu doo dooraana ah. waaw incha allah rabbi nga nii nii waaw pare nañ di ñaan yàlla rek yàlla maa ñuy bis ba yàlla maa ñuy fekkee jour ba woo si ñëpp ñëpp ñëw ñaan yàlla maa ngi dem si barke Serigne baa si suru Serigne incha allah sama maam Khalifa Ababacar si maa ngi ko ñaan yàgg na ma yàlla na ma wallu bis bis bi incha kontaan jërëjëf. maa lay ziar Babacar. naka lee ñu ngi sant yàlla ba baax. fàttali ñu fàttali lay seetaan sa tur. mbirum xulee bu dóor dóoraat. waaw ah, yow yaay bëre kële ma jël léegi. waaw Boston. Boston maay bëre Boston. mbirum bu dóor. combat daa mel ni war na mën a neex de. combat bu neex lay doon combat yi dàq ci combat yi lay doon bu soobee yàlla. mooy dàq le 25. bi. billaahi. dafa nekk ri maa ngi dóor dóoraat. waaw. garga mboose. garga mboose. Goro Sok. Cheikh Tidiane ñaa Boy Faye. ndaanaan yaa ngi foofu foofu la ndaanaan yene ah gis nga foofu la yeewoo ba pare teg ci di sëtu mbirun xule dëkk bawal nga may romb jàll ah, bawal nga dëkk bawal laa dëkk da ngay ñëw ba xomal nga jàdd dem Touba Toul boo taxawee Touba Toul ni kën jagasaar ñu la mi ngi nii moo tax ñu ne ngole kën jagasaar néegi caar pirum de rek ndukumaan tundu xaali Omar loolu neex na mu ngoog noonu la demee ndam rek incha jaajëf Aba. waaw doole jaar. am nga jaar jërëjëf borom Touba. yow de kan nga. jërëjëf borom Touba xat fa xat kabala xat baasa fadala fa duuru wala wana su jaay. waaw di la fay Baye Fall bi. <laughs> koy koy bëreel yow. waaw maa ngi dégg ay naan Ndiago de. waaw Laurent Ndiago. Laurent Ndiago. Laurent doo ku lis Ndiago. waaw bu xam waaw loolu laa dégg ah. Ah, la yow. non wóoru ma. est-ce que amoo problème ñu ñoo bëri mbooloo de. waaw mais ñaari ñaari booy yu bëri mbooloo la. nangu naa ah. day neexal làmb mais ñu tamit day neexal làmb université a laa dëkk muy Fass. nga ne waaw di ñaan yàlla tamit yàlla may ma ndam. waaw di si woo nag sama monsieur le maire xam nga di ko di ko di kontaan ci moom Ousmane Ndoye jàpp na si bu baax a baax. waaw Ousmane Ndoye yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla yokk Ousmane Ndoye il ma jàppale. waaw di wax sama mbokk bambara foola mbé mbal foola ba fee ay kee du baabu keñe lorango bi ay du baabu keñe di bëggee ñam maanaam borom Kër Massar maa ngi koy béggee bu baax a baax di béggee gars yi képp kuy jàppale Pala rek maa lay béggee. kon Fass nga jógee. waaw Fass laa jógee maam góor gi Ndiaye moo ma jox kan bi jox ma sengoor ne ma demal. kon leer le Marley bu géeje way mais Marley ci loo ne. bu wër. mais Marley namu naa la. maa lu bare ba am nga jàmm. am naa jàmm bu baax. ana waa géej. waa géej waa info. sa adversaire laal laaj naa ko léegi nekkul réel ndax xam nga Marley mu ne waa xam na la xam na ne tamit mbër bu am ay qualité nga waaw li mu xam ci man laa xam ci moom rek wax dëgg yàlla moom it mbër bu am ay qualité la li ma si wax yàlla mooy incha allah le jour ji yàlla na yàlla ànd ak man te yàlla ma yàlla may ndam. yéen ñaar kan moo ëpp ay qualité. am na ay qualité am na ay qualité xam nga da di maanaam contesté yi ñoo bokkul mais mooy li may wax rek ñi nga xamante ne ñoo nekk si ginnaaw di wax nan jël favori bi nan jël lépp. jox ko waa man loolu daf may gënal mais bis bu yàlla dogalee man ak moom ñu jaaxaarloo si biir géew après dinañ xam kan mooy dinañ xam ne favori doxul si làmb sax non non. kon daal favori boobu yow nangul nga ko ko waaye biir géew bu doo ko ko nangul. non moom nangulu ko boppam sax. nangoogu ko moom nangu ko de. kon gars yi ko koy jiiñ. waaw gars ñooy wax comprendre nga. mais li nga xamante ne moo dox sama diggante ak moom moo mooy le 25 juillet te le 25 juillet leneen la ñuy waxaat bu neexee suñu borom incha allah ndam li dem géejawaay neexee yàlla. moom moo war a bëre ki nga xam ne nii moom mooy petit guy waaye petit guy gi nee na day lu ñeme na naa ko jël nga combat mu na ma lu metti moom da koo ñeme lool fekk amul lu metti du am li ko gënal. yàlla ñu si yàlla yóbboo ak jàmm maa ngi nuyu ñu fekk yëpp maa ngi nuyu Ibou Ndiaye lu nuyu mbër yi may fekk yëpp lu nuyu sama adversaire di ñaan yàlla yu dem si tabaski bi jàmm tabaski si jàmm di ko fekkee ay année année moom amul lu ma koy wax sama at man dama amoon problème adversaire jox na ñu ay mbëri yu bëri ñu delloo avance bi ndegam moom moo jël sama avance dama koy sant di ko ñaanal di ko gërëm yàlla may ko weer ba suuru bis ba mu ñëw ma dalal ko daan ko. ba xam nga ne xale bu mën a bëre ngay bëreel. xale bu mën a bëre laay bëreel loolu dëgg xale bu mën a bëre laay bëreel loolu yépp dëgg la mais yàlla xam na ni lu nekk si man si bëre sax nekkul si moom billaahi lu nekk si bëre si man sax nekkul si moom si bëre billaahi wallaahi taalaay bu korok wax sax amatul wax sax amatul mais bu korok bu korok la 25 bu arbitre soufflé billaahi daf may jébal làmb ji. da la koy jébal. wóor na yàlla daf ma. la koy jébale da nga koy dóor seen talent yi maa si gën a nekk bandi géew xanaa déggoo ma seen talent yi yaa ci gën a nekk bandi géew billaay maa leen gën a nekk bandi géew ñoom ñëpp mun nañuy lappi lappi nii caméra yi dar leen ñuy wax mais bu arbitre soufflé billaahi ñu jébal ma làmb ji wóor na yàlla bébé guy gi jébal ma làmb ji déet waay pokola billaay daf may jébal làmb ji fii la koy teg sa loxo bi da koy teg fii bu bañee billaahi dama koy duma jàpp ko bëre daan maa ko dàq bëre fuuf yow su ko mbab mu dóoroo waa ji mu daanu xaw ma. ankay. bii mën nañ làmb la rek. mais moom moom wax dëgg yàlla bëgg naa bëre ak moom. Uh-huh. waaw. daa man de. bu mënee ñun dañ koo nàmp. loolu daa am na kuy sama am faalaay. maa ngi di sant sañ mbokku séeréer yëpp. di leen sant di sant sama mbokku séeréer yëpp nag. di sant sama booy di sant sama gaay yëpp di nuyu sama staff bi. di sant sama nijaay Zil Balde di gërëm sama nijaay Ama Balde di sant sama nijaay Paate Balde si jafe-jafe yu mu nekk yàlla na ko si yàlla génnee di nijaay sama di nuyu sama nijaay Demba Balde di nuyu Ndeela jabaru Zil Balde di nuyu Xajatu di nuyu Mariama di nuyu sama maam di nuyu ñëpp di nuyu sama sama mbokk yi waa Pàkk Lambaay bool bool yi maa leen nuyu bu baax di leen woo si waa man bool laa dëkk ndax man sama yaay sama papa mooy sam sam sama papa bool bool la moom dinaa ko xamal ne jour ba billaay wallaay taalaay bu arbitre mu xam ne doole doxul jàmm. doole doxul jàmm. billaay wallaay. te jàpp nga ne yaa ëpp doole. bañ bañ sifflé. kontaan si yow. waaw yokkute. war a ak bu Siteu mais Malick. waaw alors. ana waa ginnaaw fi. ana waa Pikine. fi. naka dëkk bi. sant yàlla ak yeneen bi. mais nga de. Ah, waaw ñàkk naa kay. mel ah, ñoo ko gisandoo. waaw. lu mën a xew moom. mënoo bañ lay teg ndax nee na mbëru ah, la rek. lan moo ma def mbëru démb. nee parce que da ngaa yàgg a bëri te la. man nan laa yàggee bëri. xanaa si sama carrière yéen. man Balla ma jiit si làmb Lac de ma jiit si làmb. Alioune Seye ma jiit si làmb. Elton ma jiit si làmb. yaa ngi dégg fu may muuma. bu géejawaay muuma bu Balla Gaye ba ñuy bëre Alsaan Digo boobu xalaatuma luy làmb mbapat lañ fa bëre ñu ñu teg fa ay bereer ñu bëre ba niil boobu man xale bu ndaw laa tànku ne laa daf dem seetaane. kon moom daa juum xanaa. waaw daa juum daf ma umpule. da laa réeré. noonu la demee nag. loolu mbaa bu continuer ba làmb ja na baax ci moom. a ah, mais làmb ja na wane jàmbaar rek ma na jàmbaar affaire bu neex ndax ñaari góor lañ comprendre ma yow. say supporter ñëwal la samay supporter ñëwal ma te ku si nekk ndam la bëgg lamb ji daal bu bu yéexee si moom la. mais bu gaawee ci yow la. non xam nga bëre ñaara koy def tey jii arbitre mën na ne per mën na prix ma bëgg bëre te moom bëggul bëre ba nan lay bëre di amee ah. arbitre mën na ne prix ma bëgg xeex bi te moom bëggul xeex bi. da xalaat mu daw. waaw déglu ma rek xaw ma luy am ndax jotagul. yaa may dégg ndax xaw ma luy am waa ndax jotagul mais li ma la wax tamit bëgg nga nga xalaat si li ma la bu baax a baax a baax. arbitre mën na sible ma bëgg xeex te bëggoo xeex xeex ñaaro koy def nan lañuy xeexee ah ah moom na dëggal boppam rek suul ay tànkam ma suul ay tànkam arbitre génn suñu diggante rek mën na la sama waay waaw. ngeen fetal jiyaar. ñu jeexaat bëre mu jeex waaye man def sa morom. mu jeex di ñaan yàlla may ma ndam rek ndam lu seddu guy ci kàttanu yàlla profité nag di sant sama sëriñ sëñ alaaji Baara mbake waaw njabootu njaboot sëñ Afe bi yëpp maa leen sant di leen gërëm comprendre ma waaw maa ngi sant maam Mor Mbacke maam Jaara Afiya soxna Koudia Afiya waaw maam Xaadim waaw njaboot gi yëpp maa ngi leen doon jàpp ci combat bi te duma yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm comprendre ma waa Diourbel maa leen sant xajul maa leen sant Samba Samba Ngéwal nangal ma laa ñaar ñu ñoom ñëpp maa leen sant daara ba daara téléphone maa leen sant di gërëm ak yéen maa ngi leen sant di leen gërëm di leen jox seen. Ibou Ndiaye Diofior mooy fi mooy nag di nuyu Modou Ngom Fatick ak sa tonton. waaw waaw. sant Seck fàtte naa sant fàtte naa turba. waaw xarit bu Moodu Ngom la daal. waaw Seck. ñoom samay soppe waaw ndeysaan yow waa fa dañu laa bëgg Babacar. non am na waaw waa Fatick dañu laa bëgg. parce damay dem Gambie dajeeg ñoom foofu. yaa ngi dégg ñu séen ma ma taxaw ci arab bi rek am lu may jënd ñu gaare seen oto. ndeysaan kon Moodu Ngom boobu. maa ngi koy bëggee bu baax a baax ak sa nijaay boobu. waaw Moodu Ngom Babacar mu ngay bëggee bu baax. waaw nga jàpp ko nit ku baax nga tamit moom jàpp na ma mu may jàpp waaw waaw waaw kon sant yaa ko baax. Ibou Ndiaye Diof waaw Ibou Ndiaye parcelle. waaw Ibou Ndiaye Obali. waaw Ibou Ndiaye Obali bi nag bëggoon naa nga wax ko xam man Obali bi ma xamoon wala boobu la. waaw Obali boobu nga bi nga xamoon rek mooy boo gëmmentoo rek. waaw bi waaw. bi may def mooy googu waaw. ngay doomi Diof nga war a kant la le 25. waaw may doomi Diof yor war a bëri Pape waaw war a bëreeg paa bi kii nii xam nga di ñaan suñu borom may ma ndam nga 25 juillet incha allah su trois mois waaw. pare nga. yow xam nga yow yaa yow mi may intro sax yaa gën a xam ne pare naa yow. waaw yow day xam naa koo xam ne chaque weekend yaa ngi ci àll bi moom di ko lijjanti. waaw ah, ñun moom bu ñu pareewu ba tey dootuñu pareeti. mais ma laaj la leen mbëri simple yi dama gis ni ngeen duggee ci arène bi léegi yéen a ngi ci bëri tànk léegi de. mais làmb ji si mbëri simple gay ngay mujjee xam nga dañ ñoo considéré comme ay mbëri simple d'ici cinq ans fii laa ko waxee làmb ji si mbëri simple gi ngay mujjee seen waxu lépp nag catégorie bi ngay bëgg gis si kaw yëpp. ba ci VIP yi. VIP yëpp barki Seydina Mohamed boo yi nga gis nii yëpp ñuy ñëw nañ dem ba si kaw te xool mbëru simple yi am yi ñu a ay mbëru simple bi saison bi ubbee ba léegi ñu si am combat ñëpp a duma seen i adversaire seen i day day gaaw te da ngeen di teel a daan. waaw dañuy ñëw duma la daan la parce que parce que parce que ñun utatuñu bëree. utatuñu kii ñoo ngeek ay entraîneur te man jamono ji dama ne si ay goxo yu wóor ay mag ñoo nekk sama ginnaaw waaw ay mag ay kilifa ñoom te def nañ gu ne si làmb ñemewu ma sax wax seen tur parce que dafa am lu ñu waxanteeg man waaw ay kilifa yu mag a dañ laa tënk lël la waaw ne la nekkal ci liñ la sant te noppi tey liggéey waaw boole ma ak ay entraîneur boxe ñu yore ma may xeex waaw di ñaan yàgg suñu borom nag bu jour waa dina dina dina lépp dina leer. yaa Pape dama koy duma dama koy daan incha allahu rabi maa ko mën mën ku ko mën dégg naa ko nag fan yi muy def ay sorti barki démb Rik TV di ndeegu di bëri wax man doomu séeréer laa amu ak Ibou Ndiaye affaire séeréer nga am ak affaire te man rambu daf maa yaakaar. bu dee séeréer yi tamit yow lay bëreel ci géew bi de. ngay bëreel non dafa am lu mu wax moo tax mais bu jour baa dina xam ne wax non jaru ko amu porogam ba nga 25 rek di ñaan yaaga mu may ma ndam suturaag ma di woo suma waa dëkk waa Diofior di woo séeréer yëpp waaw képp kuy doomu séeréer maa ngay woo. waaw région de Fatick yëpp maa ngeen di woo ñu jàppale ma si combat bi xam nga waaw di woo directeur Cheikh Kanté maa ngi koy woo bu baax waaw di woo directeur monument de la renaissance maa ngi koy woo xam nga nañ ma jàppale bu baax waaw maa ngi woo kilifa yëpp di woo monsieur le maire Go Faye xam nga ak mouvement réaction waaw réaction ñëpp maa ngi leen di woo di leen woo si. grand man dem dama gis sa benn vidéo ci dëkk bi grand yow ndeke mën ngaa fecce noonu. non man vidéo bi sa def ma bette gars yi di bégal fans yi rek bégal fans yi rek. waaye gis na pour yi kontaan rek xam ne ñun moom non stress la ñuy dundee moom du ñuy du ñu yéenu lan moo tax nga mel ni ko daw lit simple bi. non lit simple dama koo daw. lu tax dama koo daw xama rek affaire yi moom boo amee si loo jublu te gën a fonk combat bi moo tax ma arrêté lit simple bi gën a concentré si combat bi waaw mhm. waaw. Eumeu Sène Junior xam nga ko. non xam naa ko. ndaanaan la champion la mais man gisuma ndaanaanam xam naa ne champion la ndaanaan la mais man gisuma ndaanaanam kii bu arbitre dañee suñu diggante fii fii arène nationale dama koy manqué respect dama koy humilier dal ci kawam ñun séeréer dañoo yoon ne yaakamte ñu fogole séeréer ka lula in ay yakamte a in kono jee ka andoona yee i na den xaye mbar no ndambuse a den to a felanga roog xaye i fa Ibou Ndiaye feeke le 25 juillet xa i ndambuse na den si barke Cheikh Sadou Abi waaw seen daa tàng rek xanaa non loolu ñun ay xale lañu nekk si yoon séeréer yi am lu ñu pertoon te am nañ si ñun yaakaar loo xam ne war nañ koo jëli te dañ koy jëli incha allahu rabi. parce que bu ma seetloo ci séréer yi damay gis Grand Mbagnick damay gis Obali damay gis Cheikh Tidiane Niang ak eh, damay gis eh, Doud Saare ak yeneen i mbëri séréer yoo xam ne ñu ngi ci lit simple bi di wane seen bo mais lit avec frappe bi tamit ñu ngi ci dugg avec ma ak doole fi mu nekk nii ah. waaw mooy li ma la wax ñun ñoo ko moom wax je wax ko du neex mais ñun ñoo ko moom. bëre de bëre moom ñun séeréer ko moom koy jëli incha allahu rabi. te Eumeu ko ne ko lii sunu yëf. non du ma ko koy ma de. combat bi du ma ko si jox benn cër. bu bu paree ma fekk ko géejawaay nag jox ko cër bu mu mot. woon ko ne sama mag nga sama grand nga mais fii biir kër bi dama koy manqué respect face à face bi ma koy manqué amul sax leneen lu ma si kii bilaa walaay. doo ko may jàmm kon. dara jàmm jeex na jaamu jeex na fii fi ko dóoroon fii mu daanu defe naa moom sa moom siy tegu prib dip laa koy wax li ma la wax suñu waa dëkk fu ñu jóge dafa sori si nawet moom géejawaay lay ñibbi ñun dañuy dugg oto dañuy dugg saret dugg gaal doola dugg oto doola agsi fii war a ko da ngay dugg saret ñëw dugg gaal duggaat oto war delluwaat foofu guddi googu loolu day guddi loolu comme talu ma fi nekk fii di lewetoo jëmale suba non non. kon yéen du ngeen dellu ginnaaw yaa ak Ibou Ndiaye mi bés boobu xalaatu ngeen ñu kaw. loolu du du yoon sax du yoon ñu def loolu. Hmm. waaw mi daal mais fogole séeréer fop de ande waaw fogole séeréer mais xooya no fop mi grand mbañik fo Ibou Ndiaye mi ngoy njega combat mais i mbuganu ngeen wa in a paax ndamta in ande a ɓiy xa teɓ nuun xa tokoor nuun ngewɗu ku xa seereer a refna to i nga'iran wala i mbadiide me ten nu ñaanana in nu ande i njega combat mi fa Serigne Modou Ndiaye nu ndamta in a paax i ku xa kiin a waagna fi' kuwakina wagno a ñana ñaan kuwakina wagno damta in a damta in xa nuun o i njegu nuun o i yaako drapeau sereer i siku meke i ndefna xaye drapeau i ɓisiidu i mbay ngoya fop nak xu waagna kiin gara damta in inchallahu rabi a rooga ci ndam na barke Cheikh Sadou Abi am na lu ma gis tamit bi vidéo wax noonu dañ fa gis Serigne Ndiaye de gis fa Forza ngeen ne defe naa bëreegu ngeen arène mais bëri ngeen mbapat mais ñooñ di nga bëri ak ñoom ci làmb force ak Serigne Ndiaye 2. bu jotee rek bu jotee rek. vidéo bi moo tax ñuy laaj sénégalais yi laaj. non si si loolu du dara loolu sàll rek dañuy bégal gars yi xam nga comme xol yee feex rek ñu bégal gars yi mais ñu ñëpp a far. waaw waaw waaw loolu dafa leer loolu dafa leer. Ibou Ndiaye yow naa am na loo war a làkk ci séeréer de xanaa. waaw war a làkk ci séeréer di ñaanal sama doom day xam nga euh, xooyaa foog nga séeréer fop uh, grand bañik fay fata goye ngara ndamtin ah, a ndamta in sereer o fada ngara ngeer wa in jour fa i yip start ne bata may ka jeg ka sereer a manquer ina njom door ne yaxya job ka wat meen ɗetang com ke ndefna took fop vip ke ndefna took fop gayro teen u ɓiinu sereer kon fata sereer we ndamta in a ngara ndooge na in yaam kaga ye sereer we naange mobiliser oxa fata sereer we sutooxa ngara ndamit xa ɓiyaxe den i maaf xa teɓandong i ndef gidma monsieur le ministre Matar Ba région de Fatick fop ino way nqoyang combat neke pour gardam ten inchallahu rabi ino way autorité ke ndefna Diofior fop monsieur le maire Diofior ino way nqoyan ino xa grand xe i ndefna Diofior fop Mamadou Dionin tout ino way nqoya den fan si kegeb ne ministre in ko Dionin waaw kangu jangarin tout mais xoya nuun xadimin nu ngar ndam combat ne inchallahu rabi i maaf waa sant yàlla bu wér a wér gërëm. am nga jàmm am naa jàmm bu baax a baax Babacar. tey da ngaa kaalaw. waaw damaa kaalaw yaay booy moo ma ja kaalaw bi na ma yóbbaale ko. moo tax ma jël ko rek teg ko si bopp bi quoi. loolu ko war a bëree. maa bu sab la kool bu sab. kóol. kóol laaj mel mi. mel mi ma daan ko jëli bu leer bu amul benn werante la 25 incha allah. kóol njool la comme yow de. non man njool jaaxaluma man amul lu may jaaxal si làmb. kóol li ma koy wax rek amul si lépp lu làmb ji laaj maa koy def xale laa daa am fu ma teg sama foo ko teg kóol ay séance moo tax ma jël combat bi rek mais incha allahu la le 25 nañ gis lu bees tàkk tàkk tàkk sax. nga bokk ak Marley benn bés loolu du nekk pression si yow. waaw mënul doon pression si man ndax man lamb du ma si gan quoi loolu damaa jàpp ne day day gën a dundal suñu gox bu ñu dëkk ba pare day gën a dundal làmb ndax euh, képp koo xam da nga doon seetaan man rek Pape re boobu di nga doyal quoi. ñu ñëw bërendoo benn géew bokkundoo benn koñ bu ñuy yeewoo bokkundoo même fréquentation bokkundoo même supporter le 25 ku ñëw fii di nga gis euh, lu doy waar quoi. am na solo kookoy Pape Thiam waaye kii mooy wulli kii nag sama waay la moom dama koy wax Sénégal yëpp dégg sama gayen la de. Ah, xam nga gars yi mbër yi open press xam nga open press baax na mais journaliste il faut ñu jox leen cër. man damay def yenn yenn presse. yenn presse. foo koy defee. Kër Massar. Kër sa kër. naaray xar. waaw naaray béy. waaw ginaar. ak kanaara sax. ak kanaara ak xati. xam nga man bool bool la. ak i laay rey. teraanga. tera dafa lëm teraanga yéen journaliste yi. nu yendu añ. waxtaan naan boisson yu bari si nuru laa Jamil Sam. waaw waaw doon na ma gaan si nuru laa ngeen ngeen baaba ci pip bi. waay waay loolu dara newu yow kay la nga def am solo. yendu presse yendu presse dimanche la yéen ñëpp. da xewlu ba suur xewlu ba suur. waxtaan ak waxtaan. ma woo ma woo ngoyaan muy ngoyaan ñuy waxtaan. ñuy waxtaan àddina amul solo. waay waay wulee ngi waay man lii laa bëgg waaye gomis xam nga loolu tamit day gën a neex rek. xam nga damay gis. waaw open presse yi. ngeen di dem du ngeen sax naan ndox. ba sëñ Bamba du leen jox sa paas du ngeen naan ndox. mu métti de moom. bilaay walaay ba jox ku parfum bu neex nga yóbbu ko tabaski waajal sa tabaski maa bari teraanga mais tey da waaw tey damaa ñëw waaw likaayu parce que man Babacar su soo dugsee ci lamb rek damay mel ni benn affaire la bi dama ko fonk Barke Mohamed combat bi billaay walaay mu ngi ni am na problème bëti neexul non dama Pape da ngaa tëgg combat bëgg bëgg a sottiwaate gàllaaj yow itam. daf maa fay ku la fay. wulli moo ma jox téeméeri junni da may ma xaru tabaski. ah loolu diis na dafa baax man Pape dama ko bëgg xam nga la ma tax ma bëgg Pape Sarr. barke Sëñ Mbamba dama koo bëgg du du triché ba pare dafa bëgg Pikine man dama bëgg ku bëgg Pikine amul ku yeewoo Pikine ku ko gën bëgg Pikine bëru Pikine buy bëree. Pape Sarr da ci da ko jëla dee man Pape Sarr xaw ma ko me ñu ko xam nañ mën ne bu jekk dafa yoon teraanga ju bari di ko def ci mbiri Pikine yi barke Mouhamed Rasoulaay. gis naa digganteem ak Eumeu Sène. bilaay ak Baboy. ak Baboy di leen doon jàppale. ñoom Boy ñaa ñoom Ama ba noppi Cheikh Fap Labet Fall. sama xarit. Labet Fall di maamam. dëgg la si nekkoon sama. waaw surtout Labet Fall la. waaw. maa xam surtout Labet Fall te maa xam. hôtel euh, Lobat Fall ca ca ca pompier. nga xam nga mais wuli. suma nit la maa ko bëggal sama bopp. waaw. dama ne la. lu kenn musul gis ci làmb. promoteur bi ñëw sotti gàllaaj gulli wuli maa koy def. li ngay def. nëbbatuwuma si. maa ko foral. yaa far ak moom ci digg làmb ji. waaw ci digg lu bees a ngooŋ mais wuli bi nag. c'est Omar Sadio. c'est Omar Sadio. Cheikh Omar Sadio Cheikh Omar Sadio di rakki Salif Sadio Salif Sadio men Casamance moo ma ngi fi mu ngi fa dem sori na de waaw non combat laaj diggam Aziz Ndiaye Aziz Aziz borom Sador ñu ngi waxtaan léegi téléphone ak grand frère Matata Ndiaye ak Baye andi ak Badou Alé Ndiaye bag dem lan lan taa oto dem ba Gambie maak moom merci Badou. Badou Ndiaye Badou waaw. kon nga fa. mais yaa baax yaa gore mais. kenn du yow Babacar. Activox. doon naa ko naa ko seetaan. dañ laa seetaan. doon naa ko seetaan bu njëkk. doon nga ko seetaan. mais dama ko yokk ndax yow. parce que moo nag. man maa tax nga gën a yokk seetaan bi. mais lu tax loolu. lu ngeen dugal ma seetaan ko. lu tax loolu. parce que yow doo doo gën lu ñàkk fayda. doo gënal lu yàq nga daan rek nga def. Ah, loolu de suma sañoon du ma ko def. barke sëñ Bamba. parce que réew mi réewum teraanga la. yow yow yow ak Lamine mu tey nag télé yëpp bay na mais yaa lamin Lamine du ma leen yemale kenn yow xam nga ma xam. waaw fanu jaar daa daa ruqe. yaa ak Lamine. waaw du ma leen yemale kenn. yàlla nu ko loolu dafa yàgg. barke sëñ Bamba. doo fàtte démb nag. bilaay walaay yàlla ñu boole ma. fàtte kontaan tànk yi loxo yi. ku xeeb Sa waaw ragaloo xeex waay. xeex ak Yékini Senior. ragaloo xeex waay. door Cheikh Niang mi nga xam ne. mu Thiès xeex rek lay kaw na ñeenti nit. ma kaw ko ñaari yoon. am naa si set kaw ci làmb ji. kon Adama na problème de. du ma la nebu de barke Mouhamed liggéeyuma kaw liggéeyuma loxo yi laa liggéey tànk yi ak xol bi na ko li man may. waaw bëri na Serigne de. Saliou Diouf Saliou Diouf. waaye ñëwoon na at maak moom lam ji di nga gis lu bari fii barke Mouhamed. tey da ngaa lëkkaayu. lam ji lam ji dina gis lu bari fii. mais lëkkaay li nag. dinaa nga bëgg wax garaaw na de dina rey nit. Ah, loolu garaawul wax la rek. mais loxo mi bu lëkkee kaane day wax. kii xam naa lu muy bëre xam naa ko. lu muy maa ngi koy gërëm eh, ñoo bëgg saal ñoo bëgg saal. jaxase kat maa koy gërëm. Kalmandour suba samedi mu dem samedi mu dem presse maa nga fa barke sëñ Bamba booy Boy Faye maa koy gërëm Boy Faye maa koy gërëm bu baax am na sëy yu bëree bëri yu may gërëm dañu may woo bu yàpp su may bëree jër nga koy laaj kenn yéen seen internet yi boo tapee Adama Diouf nga seetaan lu muy bëre yëpp. lii ma ne ma ne mbër yegg na ma di ma wax loolu. te terewul ma jaay yow benn écrit képp benn écrit nga mos a daan sa carrière muy écrit écrit Falaye ñaari victoire nga am Sénégal ak Alaaji Mbay. Sénégal la ak kan. benn écrit la daan ñaari mbër. waaw muy Sénégal ak Adama ak Alaaji Mbay. waaw ñooñu kese la daan gese ci làmb. d'accord ma laaj la benn affaire no xaar ma wuli wuli saali bi nga saali Sénégal yow kese la. yow rek yaa xëy di tuumaal yàlla nekk yàlla la ma def yow kese la gisuma ko ko def. bu loolu weesoo mooy ba muy woo yàlla wuli wuli kenn woolu la jox la drapeau Sénégal nga porté ko yóbbu ko moom avion xam nga ne loolu kenn woolu ko bokkuñu fu ñu jaar wuli xam na ne li ma daan ci ay nit du ko daan ci àdduna day wax rek lii nii wax ji jaru ko waaye. la 25 soreetul soreetul moo tax wax ji ko bokk. mu ñëw ah théorie bi nañ ko bàyyi quoi. pratique moo des. yow xam nga Pape Thiam. Pape Thiam waaw xam naa ko. moom nga war a bëri le 25. incha allah bu soobee suñu borom. nee ko njool nga de mu ne loolu jaaxalu. ah amul problème moom njool la ñaari njool la day day neex bu dëgalee boppam. na taxaw na taxaw na taxaw dëgal boppam rek. waaw ñu def ko yëfu xale. bëri li teel a libéré amateur yi incha allah. seen combat fu muy jeex. ci lépp mun naa jeexe ci bëri mun naa jeexe ci xeex. incha allah pare nañ préparé nañ lépp daal. pare lépp waaw waaw. kontaan ci yow. jaajëf ñoo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 ginnaaw bu bëggee